وشفيعه في الأمة الذي بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محبة بيضاء ليلها كنهارها لا يصيب عنها إلا هالك مفتون وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد الصالمي التجاني الشريف وجميع خلفائه ومقدمه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu bokki auditeur u site bi di Weer Wi TV leeral ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel di leen balu xaq del suwaar ak yéen ci seen tafsirul Qur'an ñu toll ci aaya fukk ak ñaar fukk ak ñett ci suuratul baqara tabaarakallaahu ñu ànd ko ak Seydina Omar Fay ci wàllu xarana gi ñaan yàlla lu nu ci am yàlla yàlla boole nu ko ci aw yiw waaye ñaan sit bi حديث بدو بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون كون من جدون وقتي نافقي نافق موم سولن وخيني آمنوا كما آمن الناس نجم لين كم ويخلوني جمل ñoom xaalu ñu ngay wax ne anuminu ndax ñu gëm kama amana sufaha comme ni dof yi gëm gisal maanaam ñi gëm yàlla ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu tudde asufaha ala waawee xarfu tanbih la ala mane innahum humu sufaha فك نيوم دغ دغ نيوم نيو سفهاوي واي مع الاسف نياك خم سين موقف تا موي فين تخاو سين تخاواي لولو موتاخ ني ني ان نؤمن كما امن سفها غيسنغا الشفيه مانام ندوف موم اك ييووتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني تي بن حديث بو غات بو تكتالي الكيس انا كان مو موس من الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت نيكي موس دال موي كيغا خامني نوت لا بكانم وعمل موي جفل لما بعد الموت لا تا غناو دي تا خامني فوفا رك لا اك دوندو صح امتي واي دوت ادنا كون نك نيوم ني دا فا ملني على انهم هم السفهاء yàlla xam na ne ñoom ñooy sufaha yi ñooy dof yi waaye nag ma al asaf walakin laa yaalamuun nit fi mu nekk ñaare du ko xam moom xamut ne maanaam moom moom mooy safiya ndax safiya mooy ki nga xam ne day feeñal lu bokkul ak li nekk ci moom mooy an bu ko defee safiya bu ñu la ko doon tekkil tey dañuy wax ne mooy aljahil ad daifu rayi al qadim maam mooy ku réer ku xel ma néew lool waaw ku ku la mu xam koo xam ne maanaam ràññeewul li koy lor ak li koy jariñ kooku mooy safiye kon yàlla ci àll musal yàlla wax ne nag sifa la ci naafeq moom ñu nekk ay sufahaa wa ida laqu lazina amanu suñu dajeeg gaa yi nga xam ne ñoo gëm yàlla xaalu aman na ñu ngi leen di wax na ñun di gëm nañ wa ida xalaw suñu wéetee rek ila shayatinihim ñu dellu ci seeni caaxaan seen seytaane yi ngi nekkoon kon feeñal rek lu nekkul ci yow ñoo àndal rek nga ne ñooñu ñooy ci yéen laa bokk soo wéetee ñeneen ñoo àndal ñu bokkul ak ñooña nga ne ci ñoom laa bokk moo tax loolu la arab di wax zul wajhayni borom ñaari xarkanam maanaam ragal leen lool nit koo xam ne fépp la bokk ndax bokk fépp mënula am ñaare koo gis bu ñëwee ci mbooloo bi ne la fi laa bokk bu demee ci beneen mbooloo ne fa bokk soo bëggee xam ab nafiq jàppal kooka loolu mooy an nifaaq kenn mënula bokk fépp ndax mbooloo yi dinañ wuute mbooloo yi nekk benn mën ngaa bokk fépp bu ñu bokkee pas-pas bokk jëmuwaay waaye mbooloo yu bokkul doxalin bokkunu waay te foofu nekk rek nga ne foofu laa bokk loolu ku ngeen ko gis a bokk yi na ngeen ko ragal ndax loolu dafa bokk ci alaamaat yi alquran wax ne nafiq dafay mele noonu kon wa ida laqu lazina amanu suñu dajeeg gaa yooyu ne leen gëm nañ wa xale yi suñu wéete rek ila shayatinihim ñu dellu ca seen seytaane xaalu inna maakum ñun ak yéen ñoo far slogan boobu xewal nañ ko bokk yi koo gis rek na ko ñoo far ñaar ñoo xam ne ay safaan lañ kii daa jox jëm penku kii jox jëm saw waaw yow nga far ak ñaar ñëpp yow yaay kan loolu kenn mënu ko melal da ngay am koo faral kay am koo farul ak moom waaye far ak ñëpp moom mënul nekk innama nahnu mustahzi'un ndekete ñoom seen wax yooye ñuy wax gaa yi ne yi ñun daal nun ak yéen noo ànd nee na dañu ko def al istihza'u te mooy yéeg yéeg ji mooy sabotage léeg-léeg dina def mbir fekk la lay jubluwaayam ci mbir mi moom day yëj di ñamuy waxal ah allahu yastahziu bihim sooy yëjj nag aw nit yàlla wëlbatug di la yëjji moom mi nga xam ne moo la bind bind kooka ah yow day maanaam sag yëjj moom moo ëpp musiba yëjju ki nga yëjj yéej ji nag mooy sabotage rek waaw baatu wolof bi loolu rek lay teg allahu yastaziw bihim yàlla leen di saboté wa yamudduhum yàlla di leen dolli fii tuxyaanihim ci beew gi waaw beew mooy maanaam koo gis jàpp ne yaa ko gën koo gis jàpp ne doo moroomam mbokk yi loolu ah nun ñii tabaarakallaahu nekk ci daara ji lu mel noonu léeg-léeg mu gaal ñu waaw jëfal yàlla ba noppi wane ginnaaw di wax ne man da toj naa foofu ñooña du ma seen morom loolu daal bu ñu ko jàngatee dafa mel ni ak matadi la ci ki koy wax du ak mat nit bu mu jëfee ba noppi maanaam dafa bokk ci xaram sax yéem jëf jëf ba noppi yéem sa jëf ci waaw te mooy al ujbu boo demee ca muxtasaru abdourahman al akhdari mu ngi koy wax bokk na ci almuharramaat te moo ay oj bu yéem jë yow daal nit ñi suñu la woowee te li tax ñu woo la mu yàlla waaye ngal la na nga fexe ba yow mi leen di waxal ci yàlla boo xoolee bul gis mbooloo mi waaye na yàlla rek fees sa bët bu boobaa loo def muy yàlla yamudduhum yàlla moo leen di dolli di leen yaatalal rek fi tuxyaanihim étalil leen seen mbon googu rek waaw yax ma hun ñu nekk ci ngëlëm mbokk yi boo jëfalee yàlla ba noppi na taxaw di di naawe ñaari laaf te mooy alxawfu ak ar war rajaa ndax ngëm yàlla moom ci rek la sukkandi te mooy alxawf bil jalil ragal borom bi subhanahu wa taala wa stidaad ak waaj bi raxiil yi maanaam jàpp ni bis bu jot tey la loolu bokk na ci alaama yi nga xam ne day feeñal ak ragal yàlla loolu bokk na ci màndarga yi kon def ba noppi maanaam di yéem sa jëf jëñ la beew loolu daal màndarga yi naa fekk yàlla mu ne ulaayika allazina istaraw addalalata bil hude ñu day ñoo jëndee maanaam réer ñu jënde ko ak njub mooy ginnaaw bi la yàlla defee doomu aadama yàlla jox la xel ba noppi nga jël sa xel moomu te mooy li ñuy wax teg xel nga jàpp ne yaa ngi teg xel gaa yi gëm yàlla yaa ngi teg xel sa borom waaye di day fii la mën a toll ndax kenn mënu la teg xel yàlla kon ñi ngay wax ne gëm naa ñooña ngëm gi du ñoom la concerné waaye ngëm gi benn i'tiqaad la benn pas-pas la sa diggante ak yow sa borom kon dëgg-dëgg istaraw addalalata bil huda ñoom ñoo weccoo réer ak njub njuba nekkoon ci seen loxo ñu weer ju weccoo ko ak réer fa maa rabihat tijaaratuhum ñoom daal sen commerce bobu du am doon benn bénéfice wa ma kanu muhtadin te ñooña dootuñu jub mukk nag ndax jubal leen dana jafe mooy borom ñaari melokaan lañ doo xam fu ñu bokk pour nga mën leen a dimbali nit daal pour ñu mën ko dimbali dañu xam ne ku réer la ku réer ñu ne dañ koy jubal ñu jubal waaye ki nga xamul ne dafa réer wala dafa jub kooka nag dina jafe lool pour nga mën ko teg ci yoon nga defee tabaarakallahu yàlla leen di misaal mu ne ñooñu nag masaluhum ka masali lazina stawqada naaran falama adaat ma xawlahu zahaba allahu bi nuurihim wa tarakahum fi zulumat la yubsiruun tan ci musal mu ne ñoom seen misaal dafa mel ni maanaam ñi nga xam ne dañu taal sawara maanaam ab sébbu taal lumière ba ada at ma xawlahum mu leeral la leen wër yëpp leer nañ léegi zahaba allahu bi nuurihim yàlla jekki-jekki rek maanaam fay seen lumière boobu wa tarakahum fi zulumaat mu bàyyi leen ci ak lëndëm laa yubsiruuna ñoom xamatuñu gisatuñu ñuy làmbatu seen misaal noonu la mel ginnaaw bi leen yàlla joxe xel ba noppi ñu wëlbatiku di teg yàlla kan di ko teg ñi nga xamee ni ñu amanu summun bukmun yàlla mun a summun ñooñu dey maanaam dañuy nekk ñoo xam na seen nopp ya dañ ko sakk bukmun dañuy nekk ñoo xamee ne ñi seen gémmiñ ya du wax umyun seen bët ya tamit dafay gumba fahum laa yarji'uun ay laa yarji'uuna anil xaq duñu dellu mukk tegu ci dëgg ndax loolu feebar la fazaduhum zaadahum allahu marada je yalla waxon ci laay ba jitu moy yalla mo dolli manam sen melokan yi ko defé tabarakallahu ak ah, kon nu yemandi fofu tek fa suñu baram ci aya fuk ak juroom ben ñaan yalla bu nu ak jamm inshallah ñu di ci dimbalu sayna Omar di ñaan yàlla tabaarakallaahu yàlla yàlla dégg loolu alquran yàlla topp loolu ko bi jaay mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam seen mbokk sax Cheikh Tidiane Mbengue wafaqana allahu ala taatihi bi ridaa wassalaamu aleykum wa rahmatullah